Thank you. daa leen ko naa ko wax di am taw taw rek lañ ko may xaas la ñu am ñoom ñun déet déet nag si li gën a xas ci xas na yi xaas la ñu am xaas la ñu am bu wér wér wér wér ne taw te ngeen dund ci fàggu waaye nag dañ ko bale xaas xaas ngeen am waaw incha allahu kon bala ngeen di teewlu rek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 na nga leen def ci suuf xaras a kursi yu maanaam bind leen ci suuf xaras ak kursi yu te dootuñ farati mukk mu ne ko yàlla nga nangu ñaan yow yàlla mi borom bi def fi yaa man yow yàlla yow yaay ki nga xam ne wasi'a yaat na kursi yu sa kursi yu ga mooy ëpp na rek sama waati asamaani juróom-ñaar wala ardi ak suufi juróom-ñaar wala yauduhu te du ko diis mu ko hifsuhuma seenu wut ñoom ñaar waxu moom yàlla ala aliyu yàlla mooy aji kawe ji alasimu tey aji màgg ji mu ne ko yàlla ki nga xamee ne kursi yu de maanaam moo ëpp asamaani juróom-ñaar ak suuf kursi yoog aras yëpp ñoo ëpp asamaani juróom-ñaar ak suuf ndax dañuy wax ne boo jëloon kursi yu jël asamaani juróom-ñaar suuf ak lépp lu yàlla sàkk rek boo ko sànnoon ci kaw aras day mel ni jaaru boo sànni ci kaw euh, ab seng wala jaaru boo sànni ci xàll boo xam ne dara nekku fi ni fay wéetee ak ni muy tuute ci sa bët noonu boo jëloon kursi yu ak jël aduna ak li ci biir sànni ko ci kaw aras day mel ni ab jaaru kon kursi yóbbu yàlla bi kursi yu nag li muy tekki mooy ab lal mooy sarira maanaam ëpp na asmaani juróom-ñaar ak suuf dégg nga te moom yàlla nag du ko diis mukk nag ah xam nga xam nga lii ku ne ku ko wax ku ne daanaa lii moom kon diis na di mu ne walaa yi odoohi suuma wutu leen du ko mukk xanaa sa kursi yu lépp ci kàttanu suñu borom lañ nekk yàlla moo leen yàlla moo leen téye yàlla moom nag mooy aji kawe ji tey aji màgg ji wa basara yàlla na nga bégal bihima ci ñaari xasida yooyu jamia xis bii mboolem kuréelam ba almufiliin ñi daway taxe muddata baqaa i dunya feeg addunaa ngi am rek wa bax dafa naaya ak gannaaw ak jeexam mooy tukkeem amin yàlla nga nangu ñaan mu ne ñaari xasida yi yow sun borom yàlla nga ci bégal mboolem kuréel bu texe bi mooy yonent yi jiitu ca saxaaba yi ñoom ñëpp yàlla nga leen ci bégal feeg addunaa ngi am wala gannaaw bu adduna jeexee wa bax dafa naaya mooy muddata baqaayi dunyaa nag mooy fekk addunaa ngi am rek nit ñi la dund rek moom la ci jublu mu tàmbaliwaat geneen xasida bisimillahi sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arahmaani buur bay xéewlaa kon ñëpp ci yi arahimi tey aji yaram ko soob ci alaxira mu tàmbale naa ci turu sun borom yàlla mi nga xam ne mooy gi xéewlaa kon ñëpp ci adduna tey aji yaram ko ko soob ci alaxira wasalla yàlla na sax dàkk di julli allahu yàlla ala sayidina ci kaw sunu sang bi muhammadin turam mooy ma waala ari ak ñoñëw sang bi ak saabaam bi wasalama tamu dolli koolu tasliman dolli koolu wa faraxani maa ngi koy ñaan moom yàlla ba dana dolle dana ma dolle bégloo tafrixan mbégte moo xamee ne yesiidu ni dana ma dolli tax siima may màggal xurmati lay ay xormaam moom yàlla tabaraka moom mi nga xamee ne barkeel na wa taala te aji kawe waaye wa yuxti ni dana ma joxe bi ci moom yubnaha barkeem yow ma taasoo xa te mooy bisub juróom-ñeenteel ci weeru tam xarit yow mi moy sama bis bii maanaam doo fekkoon mu cee bind xasidi mooy sama tay jii moo tax mu ne mi sama tay ji laa ci jublu xasidi gi ci bis bi la ko taalif mooy defe naan ñi ngi ci weer wi ñi ngi ci weeru tam xarit incha allahu bu ko defee mu ne maa ngi tàmbali ci suñu borom yàlla muy xéwlaa kon ñëpp ci ko soob ci maa ngi dagaan ci yàlla mu julli ci yonent bi nga xam mooy sunu sang bi turam mooy Muhammad yàlla yàlla julli ci waa këram ak saabaam yëpp maa ngi koy ñaan moom yàlla waxtu ne muy dolli ak wóolu ak kullite yonent bi sallallahu yàlla maa ngi koy ñaan mu bégloo ma mbégte moo xam ne waxtu ne dafa may dolli may gën a màggal xormaam yi lim xormaal yëpp ma di ko màggal waaye itam maa ngi koy ñaan ba dana ma jox barke bis bii ma nekk te mooy juróom-ñeenteelu fan ndax bis bu baax a woor la ak bisu fukkeel ba taasuha ak xaasooraa xaasooraa mu ngi bàyyi ko ci xaasoru tekki fukk rek taasuha muy bàyyi ko ci tison gi tekki juróom-ñeent xam naa ñu bëri nag duñ leen xam ngir baat yi ni ñu ko waxee waaye loolu rek lañ ci namu buñ na taasuha ak xaasooraa mooy bis rek lañ ko tuddee mu ne maa ngi koy moom yàlla ba dana ma jox barkeeb bisub juróom-ñeent bi te mooy sama bis bi ma nekk ndax bis boobu ci la nag baatam yow ma taasuma moom la tënki xasida yow mii ndax bis boobu ci la ko bind mu ne yasulu lii ilal jinaani maa uhib wali siwa naxwin taxa maa la uhib yasilu dana eggali li ci man mooy dana ma jox rek ilal jinaani ba ke rek may tàbbi aljana maa uhib lépp lu may bëgg wantaxaa dana jublu si waa nax wi jëm ci furu sama wàll maa laa uhib lépp loo xam ne moom ma koy bëgg nee na lépp lu may bëgg rek bakke rek may dugg aljana ci aduna ba ëllëg may tàbbi aljana suñ borom da koy ñoddi mu ñëw ci man waaye nag lépp lu ma bëggu rek suñ borom da koy dàq mu jëm ci furu sama wàll wa jantu jëmale naa dégg nga bii la am di cantu xool wu bi sukóori ak cantu cër man ka nga xam ne lam yesal mosul dañ mukk bi amidin di aji cant ji sa kóori tey doon santaakoon nee na jëmale naa sama cantu xol ak samay cantu cër yëpp jëmee ko ci suñu mi nga xam ne dégg santaakoon la waaye day sant ay soppeem xaamit mooy ko xam ne day sant ay soppeem sakoor mooy ko xam ne nag santaakoon la moom mooy ko sant rek mu daal di la dolli ci sansa kooku mooy sakoor dégg nga boo defee sukkoor rek mu def la sakoor sukkoor ak sakoor bokkuñ boo ne sukkoor mooy jàmm bi nga xam ne day jëf effort sakoor nag mooy yàlla mooy kii sant effort gam def moo tax wajjantu jëmale naa bil am di cantu xolo bi sukkoor ak cantu cër man ka xamee na lam mosul dañ bi amilin di aji sant ay soppeem waaye sakuru doon koo xam ne santaakoon la moom suñu borom subhaanahu wa taala kon yàlla moom santaakoon la moom borom bi subhaanahu wa taala ndax wa kaana allahu sakiran aliman yàlla dane mosu mosul dañ moom yàlla di santaakoon ta kaana yooyu yëpp mooy mostu dañ lay tekki foofu suur nisaa yi kaana yu nekk suur nisaa yëpp loolu lay tekki madda talal na li jëmee ci man allahu yàlla alkarimu moom yi aji tedd bu sura mbég dunyaa fii ci àdduna waxuraak àllaaxira yan mbir moom ma doon ko fii sax mu basiraa doon ku ñu bégal yàlla mu daa ji tedd ji jox na ma mbég moo xam ne ci àdduna ak la te damay sax ci àdduna du ma faatu mukk te du ma tàggoog mbégte waxtu ne suñu borom daf may bégal tan xoon dana ma jublu alxusna aljana wa yan xoon yi dana ma jublu asayan ndollan buuñaa muy gis yàlla mustax ni yan dana ma doyloo bihaa ci moom dégg nga dégg naka noonu xan an ma di tàllal kenn sama loxo nee ne aljana ci boppam am naa ko jublu na ma ndollan am naa ko mooy li la si ne ansuna luus naa wa siyaada te yàlla na ma ci boppam ba du ma tàllal sama loxo kenn gannaaw ba ma amee aljana am ndollan wali qaadara bi xayra saydin adil husna ca liyan xaare sax dafa wax ne ngën ci ak buña la am nga xam ne mën am buña waaye doo am bëggën moo tax ma ne yàlla mustax leen aji doylu loolu ma aji doylu loolu ma biyaa ci moom kasaa naka noonu an maddi yat tàllal kenn sama loxo at loo danaa jàng li wàcc laay ngir jëm yàlla ji sikroo téere bi di alquran wa foo ma fekk rek maa ngi koy jàng man suñ Tuubaa foo ma fekk rek maa ngi ciy téere bi yàlla bi di ko jàng te lépp nag ngir jëmmam ji rek moo tax ma di ko def. bilaa tasanuyin nag te amul ci ta tasanuyin ci lu dul may fiiñal loo xam ne nekkul ci man wala xuta mbir moom yàlla xabilaa nangu na omri sama dund. nee na o ma fekk damay jàng téere sunu borom bi rek téere bi di alquran daal fekk rek te jàng lépp dara ko lu ngir jëm yàlla bëgguma ku ma ci fay dara waaw ah, te loolu may feeñal loo xam ne nekkul ci man nag ah, jàngi ma koy jàng du ma feeñal loo xam ne nekkul ci man ndax am na ko mi ngi jàng alxuraan waaye day feeñal loo xam defe na ne mi ngi ci moom te fekk nekkul ci moom ndeysaan nee na yàlla nag nangu sama dund subhaanahu sëlal naa ko lépp lu yellu ci moom rabban yàlla muy buur kariman tey aji tedd asxaaba dàq na bi kulluma lépp loo xam ne lam yarda gërëm loo hut ma ko lii ci man fa saxabaata mu dal di dem mu dàqu dem yàlla maa ngi koy sori lépp loo xam ne yellul ci moom ndax buur la bu tedd rabban mooy buur bu yare mooy yar doomu aadama bi mooy buur bu tedd bala nga koo ñaan itam mu defal la mooy ki nga lépp lu ma gërëmalul rek dàqal dama ko mu daal di dem dootuma dajeeg moom mukk waa jaxtu jublu naa ko alyoma tey ji bi sukkurin ci ak camt ak gërëm min hugu bàyyi ko fa moom ilayhi delluwaat ci moom dégg nga fayran aku xéewal yi bëbb ko tuuru wara diitu te gërëm loo naa an xóolis ko nee na tey ji jël naa sama lépp jox ko yàlla ci di ko cant ndax nee na ay mayam yuy bëbb waxtu wu ne ñu ngi may ñëwal cant goo xam ne day bàyyi ko ci man di jëm ci yàlla yëpp ndax yàlla rek mu ngi sant sëriñ bi sëriñ bi itam di jëlaat cant gi di ko delloo kon cant gi moom diggam ak boromam yàlla nga koy cant mi ngi cant borom loolu mooy minhu ilay waaw nga xam ne cant gi day ko ci yàlla di delluwaat ci moom rek waaye nee nag ay mayam yi bëpp ba tey ñu ngi ñëw ci man may yoo xam ne fa ñu bee di du jeex te fi ñuy sot duñu fees moo tax yàlla gërëm naa ko bég naa ci moom waa jaxtoo jublu naa ko al yawma taji bi sukurin ci ay cant minhu cant yooyu nga xam ne day bàyyi ko fa moom ilay delluwaat ci moom cant yëpp day bàyyi ko ci yàlla delluwaat ci moom faydan ànd koog defal na ma ay may yuy bëbb ko saawaan wara ditu te gërëm loo na anu wëlis ko àllama ni xamal na ma bi annahu nag moom yàlla wa maxee ànd naag man lii ñeel ma fii kulli seen ci bépp mbir ah si man aji musal la ma min tamee ci li nga xam ne moo di bëgg-bëgg aw ma benn bëgg-bëgg ku yàlla yàlla xamal na ma ne man sëñ Tuubaa fu ma nekk rek maa ngi ànd moom ci mbir mu mën a rek yàlla nee na maa ngi ànd ak moom loolu ndax nag ñëpp la ko yàlla xamal dëgg la ñëpp xam nañ ne yàlla moom mi ngi ànd ak jullit bi dëgg la inna la amaana kala inna ma'i rabbi sayadin yàlla boo nekkee ci njub rek mu ànd ak ndax ñëpp xamee nañ ko noonu ndax jullit bi tey lépp lu muy def mu ngi bàyyi xel ne yàlla mi ngi ànd ak moom sëñ dafa bàyyi xel ne lépp lu mu nekk rek yàlla mi ngi ànd ak moom moo tax du def safaan mukk yow nag xam nga ne yàlla mi ngi ànd ak yow waaye da nga koo gëmul nag xam da koy wax rek waaye nag fasoo ko ndax boo xamoon ne boo ko fasoon sa xol ne yàlla mi ngi ànd ak yow doo def njom bi adduna mukk ba ci sa bëgg-bëgg bopp sax yow doo ko xam ne yàlla mi an ànd ak yow loo bëgg moo la koy defal moo tax ma ne ma xamal ne ma mu ngi ànd ak man waaye musal na ma ci sama bëgg-bëgg bopp nga xam ne kon lu mu bëgg rek suñu borom moo ko koy defal lu muy ragal suñu borom musal ko ca akaramani teral na ma bi maa yëfoox loo xam ne kawe na sax ni sama njorto wasan na xëyri ak njorto ku dul man moxli daan muy aji saxal dàkk lii ci man man nii li nga xam ne moo di xéewal samay xéewal yàlla teral na ma tiraanga yoo xam ne wallaahi séentumu koon sax foox na sama njorto waaye tiraanga yooyu ku man sax gis na ci boppam xoolal tey sëñ Tuubaa ñaata nit lay dundal te moo ne nekk fii a ah, ko xam ne yaay joxe dépasse te doo xañ si wallaay ndeysaan mooy sëñ Tuubaa waaye nee na saxal na dàkk ay xéwal lañ ci woon mooy xéwal yi lu ñuy bëri bëri yàlla defal ma ci lu kawe sama njortoo defal ko ku dul man ah nee na xéwal yooyu day sax de bu leen jàpp ne day bay day bay ko sama loxo te ba yow mal xiyaam rek ñuy tàbbi aljana te li ngeen di gis ci àddina yéen du dara nag. likal kali wal yadi farrat wa kaana lii bi ajdal afyadi ayato ay ayam yii di alquran farat daw na waqiit li calcul yi dugg sama biir xol wala yëdi ak sama loxo nee na mboolem aaya alquran yëpp ñoo dawal seen bopp ñoo dugg sama biir loxo ñëw dugg sama biir xol kon daal xolam da koo mokkal waaye loxo mi itam mokkal gi mooy lan mën na koo bind nga xam ne alquran masalan bu réeroon wala yàlla jël na ko ci xolu ñëpp ci nattale sëñ Tuubaa moom mën na koo bind ci loxo te dara du dégg nga du baat ya du aay ya du xuruf ya du dara gis ga kaamil bañ ko joxoon dégg nga waaye joo xam ne kaamil boo xam ne seetlu nañ ko lu mat juróom-ñaari nit ñoo xamee ne ñii jàpp nañ ne ñu man alquran lañ naar bi def ko waaw ñëw jox ko Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa laal kaamil bi rek la def laal ko rek ne sàllaaw benn sadd rek nga ci fàkk fàtte fa fariqan kasabtum sad googu rek moom nga ci fàtte te kaan fuur yëpp jox nañ leen ko man nga ne waaw ñu seet ko bañ ko joxee Sëñ Tuubaa moom hubbiir kaamil bi sax da ko laal maanaam mel ni kaamil bi moo ko wax na ko am na lu manqué ci man ta baat manqué wut te pourtant de xaraf manqué wut ci waaye benn sant rek la seetal loolu kon kooku bu la mooy borom alquran war nga ko mën a gëm. waaye moom yàlla ma wakaana nekkal na lii ñeel ma bi ajdal afyadi la gën a cëru ci njëriñ yi maanaam la ëpp njëriñ ci mboolem moom yàlla li muy jox rek nekkal na ma ca wakaana lii bi ajdal afyadi yan xaaru dana wamatu li jëm ci man min qadaril muqtadiri mu bàyyi ci kattanu aji xam kattan ji. ëxla bu saaraatin gën kaa yëkkatiku ci ay mbég fi xëyri ci lu benn nox nox di ci ànd nee na day womatul boppam bàyyi ko ci yàlla mi nga xam ne mooy ku am kattan ci kattan nag ci lay bàyyi ko waaye day womatu ñëwal boppam nee na xeeti mbégtu yàlla di joxe yëpp ya ca féete kaw te mbégte moo xam ne nëx na moom dootu ci topp nee na mooy womatul boppam di ñëw ci man wajjaxa jëbale na jumlatal makaar yi mboolem xeeti naqar maxan yëpp li xëyri saati ñu jëm ci furu sama jëmu wa jamaxaata dajal na moom yàlla lii ñeel ma almunaa sama mbébét léeg-léeg mboolem xeeti naqar yu am rek naqar yu judd yëpp di ñëw ci nit ki sun borom musal na ma ci sama jëmm dootul jublu mu ko sama jëmm waaye yàlla dajal na mboolem li may mbébét jox ma ko. mi nii bàyyi ko ci man loo jëm ci yàlla am dun cantu xol wu sukurun ak cantu cër abada faw alal la si ma di ko jaaree ci yonente bi nga xamee ne aw sala mooy jox na lii ñeel ma mooy eggale na rek lii ci man wa abadaata mu saxal ko. nee na bàyyi na ci man jëm ci moom ak cantu xol ak cantu moo tax mu ne bàyyi koo na ci man ak cantu xol ak cantu goo xam ne du am fu muy yem waaye ma di ko def cant googu cant ma koy cant ma koy cant suñu borom ci sama xol ak samay cër dama koy jaare ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ne lépp lu ma ko doon liggéeyalal gis naa ci njëriñ yëpp mooy jox na ma xeeti njëriñ yëpp dégg nga mboolem xeeti njëriñ rek yi juddoo ci liggéey bi ma koy liggéeyal yonent jox na ma ko. moo tax ne mi nii bàyyi ko ne ci man loxo jëm ci moom yàlla am dun cantu xol wa sukurun ak cantu cër abada faw alal lasi ma di ko jaaree ci kaw yonente bi nga xam ne aw sala egg na lii ci man lépp lu ma ko doon liggéeyal xëyti payoor yëpp wa abraata mu saxal ko te lépp day sax rek di ko ko jox moom yonente bi sallallahu alayhi dana eggale lii jëmee ci man moom yàlla bilantiha in ci lurul muy am yemukaay ma uhib lépp loo xamee ne danaa ko bëgg wanta faa waaye dana dàq si waa nax yi mu jëm ci furul sama wàll maalaa uhib loo xam ne moom bëgguma ko nee na suñu borom lépp lu may bëgg rek mu daal di ma koy jox te bu ma koy jox dama koy jox rek waaye doom fenn fu muy yem waaye lépp lu ma bëgg rek suñu borom daal di ma koy daqal mu daal di dem ci sansa léegi nag mu tecc na bilaa sallabin xam nga dafa waxoon ne maa ngi ñaan yàlla mu jox ma barkeeb yow ma taasoo bisab juróom-ñeentel ci weeru tabaski barke bi nag nee na bu ma ko yàlla joxee bilaa sallabin bu ci riñ ci am riñ ci mooy may la ba noppi nanguwaat ko yàlla da koy def abadan faw nag waaw yàlla maa ngi ko ñaan bu ma ko joxe ba noppi bu mu ko rinkuwaat faw amin yàlla nga nangu ñaan ci ñaan googu ma la ñaan yaa rabbal alamin yow yàlla mi borom mi defi barke bi daal bi nekk ci fukki fan ak juróom-ñeent yi bi ci nekk kon barke nga ca sëñ Tuubaa ñaan suñu borom jox ko te dootu ko jëlaat mu na ma sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur bay xéewlaa kon bépp mi ndéef ci àdduna arrahimi buur bay aji yërëm ku ko soob ci àlaxira mu ne maa ngi tàmbaliwaat xasida gi di yow ma xaasoora liya ba tey ci bisu xasura muy bisu fukkeel ba ci weeru tam xarit wi nekk ci la taalif mu ne maa ngi tàmbali ci tur yàlla yàlla muy xewlaa kon ci na ci alaxira wasala yàlla julli wa ala ali ak saxaabaam yi wasalama tubu dolli góolu tasliman ak dolli góolu maa ngi dagaan ci yàlla mu julli ci yonente bi nga xam ne mooy sunu sang turam mooy muhammad yàlla yàlla julli ci waa ak saxaabaam yépp te dolli fu mën a nekk moom yonente bi sallallahu la xasiidati xasiida gii nga xam ne euh, kama jaan la comme ni nga xam noonu la defee mi na law yi ma bàyyi ko ca alaw ja al maxfuusa gëdë guñ wëttu xasiidati sama xasiida gii nga xam ne al maxfuusata ñi ngi ko tibbee ñi ngi ko jëlee min haasil hurufi mu bàyyi ko ci yii xaraf al mubaarakati yadu yuñ barkel wahiya moom qawli mooy sama wax yow ma a aliya ndax ci la ko taalif maanaam mel ni ku naan fukki fan daal ci weeru ci weeru tam xarit ñeel na ma loolu yëpp lam ci jublu mooy dundal gi nga xam ne da ko doon dundal te lépp jëmee ko ci boromam subhaanahu wa taala mu ne euh, yàlla yàlla julli ci yonent bi nga xam ne mooy yàlla yàlla julli ci waa këram ak saabaam yetta mu dolli koolu comme ni xamee ne noonu la bàyyi ko ci lawhul mahfuz xasidi gi nga xam ne dama koo jëlee ci yi ta te mu doon yu ñu barkel te mooy sama wax ji di ma asura aliya noonu la ko tënkee kon xasidi gi sëriñ bi nee na ci lawhul mahfuz coow la bàyyi ko waaw jaarut fenn ci lawhul mahfuz nee na la bàyyi ko daal ñëw ci ay loxom yàlla na ko yàlla fayal incha allahu mu tàmbali xasida gi nga xam ne moom la wax ne lawhul maxfuus la bay koo moom xasida kon ña ngi ko bind ca lawhul maxfuus mu jël yaaxag yow ma gi da ciy nettali rek maanaam bisu fukkeel bi ci weeru tam xarit mayi ci yàlla defal ba ci njëkk mu ne yuusul li ujuruhu bilantiha muxnin lahu ma annabi sayrin taha mu ne yuusulu dana eggali lii jëmee ci man moom yàlla ujuruhu yoolam bilantihaa in dañoo xasaf xam si gi ngir woy wi bilantihaa in mooy ci lur muy am yemukaay kan moo koy def mu ne muxnin yàlla muy aji doylu ji nee na sayrin taxaa doxuk sama tukki bi nag maanaam fa muy yem loxoo jëm na ci moom dong ma bi ànd ak yonent bi nee na suñu borom muy aji doylu ji ba soxlaalut kenn soxla yu daray mbindeef lépp lu mbindeef am moo ko ko jox nee na suñu borom moomee aw yoolam payoor yi may jox waxtu wu ne daf ma koy jox ci bis bii te du am yemukaay waaye nee dox bi may dox nekk ci tukki bi nee na maa maa ngi yonent bi waaye nag jëm ci suñu borom subhaanahu wa taala jëmu ci kenn ku dul suñu borom. waa jaani dana ma euh, waa jaani dana jëmale ci man ilal jinaan bekk rek may tàbbi aljana maa yësuru lépp lu may bégloo bila asantu lu benn lor wali waaye jëm ne ci ku man maa xasuru lépp lu jafe. si waaye jëm ni ci ku man maa xasur lépp lu jafe nee ne suñ borom lépp lu may bégloo ba rek may tabal jina rek loolu lay jëmale ci man te duma lor mukk mooy benn lor du ci ànd mukk waaye lépp lu jafe itam suñ borom def ma cee musal du ma jublu maanaam lu may jublu rek mooy lu may bégloo ba rek may tàbbi aljana waaye lu jafe wala lu may naqari wala ay lor suñ borom musal na ma ci moo tax man waaye jaan yi dana ma jublu ilal jinaani ba rek may tàbbi loo xam ne daf may bégloo bi la asan te duma lor ndax léeg-léeg mbégte ñëw sax jural la ak lor loolu yëpp day am lu wolof di wax ne léeg-léeg ay métit mujj jur bànneex léeg-léeg nga am banneex mu jur métit dëgg-dëgg bànneex sax boroom xam-xam yi udaba yi dañuy wax ne balaa neex dëgg-dëgg fokk mu jural la métit dégg nga ñu misaale ko ci lu bari ci ay jongoma ci seen téer yi nga xam lañuy def di xësal mu ne lépp loo xam ne lu jafe li itam kooku dootuma ma malaktu moom loo naa xidmati sama liggéey bi annabiya kan kada ko solo ahmadaata mooy ahmad min assasine li ko tàmbalee 1301 li massasine jëm ba ci 1340 waxam yi daal ta santees na ko nee sama liggéey bi lépp dama ko jox yonent bi li ko tàmbalee 1301 mooy at mi nga xam ne ci la woote yoon murit masas nag njaarim la ko fekk moom mooy at mi mu woote màggal gi at mu ci topp kooku mooy masas waaye nee na lépp sant na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam màggal na lépp yàlla màggal na lépp ñoom ñëpp dañuy màggal sama xasida sant nañ ko alamani xamal na ma yàlla taala moom mi aji xel man xam-xam boo xam ne kafa moo fegal janaabe sama wàllu anheda samay noon wasul ma ak seen tooñaange ya nee ne sunu borom moo ma xamal xam-xam boo xam ne mboolem noon yu ma jublu woon di ma tooñ di ma fitnaal sunu borom xam-xam booba ci la ma musalee xam-xam ci la ma musalee samay noon ak ñi xam ne ay tooñkat la ñoom ñëpp sunu borom musal na ma ci ñoom kafa fegal na ci ci xam-xam boobu mu xamal na ma mu xamal ma janaabe sama wàllu anheda samay noon wasul ma ak ñi nga xam ne ay tooñkat lañ. wo womat naa si sama jëmi bopp yépp ilaa ilaa yi jëmee ko ci yàlla dégg nga allahu ta buur ma an nabi ànd ko yonent bi aminan mbir moom mooy aji wóolu mooy aji mucc rek mina si ci lépp luy tëj ab bakkan nee na sama bakkan jël naa ko na ko sempeet jëmee ko ci yàlla dong ànd ak yonent bi mucc ci lépp luy lu ñuy lu ñuy wax maanaam luy tëj bakkan xaf si mooy loo xam day tëj bakkanu nit ki ba du jublu yàlla du jublu lu baax yàlla na ci yàlla musal mooy borom bakkan bi ngeen di wax mooy bakkan boo xam ne ferut bi jaahi fatimata aftim nafsi an kulli ma yajuruni li absi gis nga ci tuufatu ba gis nga ci xeriñte ba xam nga fatimatu mooy tekki koo xam ne dafa fer dafa bàyyi ko ci ku fer manaam koo xam ne dafa fer ci lépp lu bon rek boo ko dul misaal bi mu yeggee ci Fatima bay tawsul mu ne dama bëgg nag lépp lu may bijj rek di ma jëmee ci luy tëj sama bakkan ba tax sama bakkan bi du fer ci lu bon ma ca moo tax ne xuttu womat naa naf ci sama bakkan ilaa ilaahi ko ci yàlla muy sama borom allahu te muy buur maa nabi ànd ko yónent bi aminan may aji mucc miin af si ci lépp luy tëj bakkan maanaam daal lépp luy tëj bakkan lu bon loo xam ne mën naa bijji bi tëj ko ba du ma nekk boromam loolu yëpp naa ko ne wan ko gannaaw jël sama bakkan jox ko yàlla yàlla moom boo ko joxee sa bakkan mu defaral la ko sahidati amlaaku fil buhuri liya bi asmati minal madhuri sahidati mooy seedeel na ma al amlaaku malaayka yi fil buhóori ca biir géej ga lii ñeel ma bi azmatin sama mucc minal mathóori ci iblis ma nga xam ne dañ ko dàq moo li sirmandi yàlla nee na malaaka yi ba ma nekkee ci biir géej gi ñoom ñëpp seede nañ ma ci mucc gi ma mucc ci iblis ñoom ñëpp dañ koo seede ndeysaan nee na malaaka yëpp dañ ne yow kat ah wax dëgg yàlla yow lañ mës a gis nga mucc ci iblis waaw ñoom malaaka yi ci boppam ñoo ko seede kat ñoom ñoo ko seede waa jaxani jublu na ma bi nasri ci ndimbal ahlu badari ña teewoon badar ñëpp waxtu xtiraa bi waxtu ma nekk ci tumurank ba ca géej ga xend ahlil xadri fa ñooñ waru nee ne ba ma nekkee ci géej ga tumuranke nekk ca ña nga xam ne ñoom ñëpp dañoo waru man nag li may def nekkul loo xam ne jëfi waru la waaye ñoom la ñuy def yëpp ak ak waru rek ba ci xataa yóbbu guñ ko yóbboon ci géej ga ak waru rek la leen jural nee na ba badar ci boppam ñoo ma jublu di ma dimbale ci waxtu ne ci waxtu ma nekk ci sama tumuranke ba fa ña nga xamee ne ñoom ñëpp dañoo waru ahlu badar nag ñoo ma jublo di ma dimbale foofee waxtu ma nekk sama tubaranke ba ca géej ga cundum te ñoom ñëpp dañoo waru rada delloo na allasina gaa ñi nga xam ne kafaroo dañoo weddi yàlla bi xay sim seen merma la këpp seen kaw lam yëb ji doo amuñu xayran waaye <laughs> lay la xayran lenn lu li nga xam ne dañ koo bëggoon ci man amuñ ko lam yëb ji doo amuñu xayran aw yu na aw sëril na ma moom yàlla bi sulmim seen tooñaange ya mooy li alquran di wax ne rek wa rada allahu allasina kafaroo bi xay sim lam yanaaloo xayran ndax yonent bi la ko yàlla njëkkoon a defal ñoo xamee ne dañ ko daan dañ ko daan tëru di ko muulu bëgg a moom suñu borom jël seen meram yëpp këpp ko seen kaw ba xare boobu nga xam ne dañu ca lañ a dem sax farut xare ba farut am sëñ tubaay bi tam ay jooju la wéy ne suñu borom delloo na ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla seen meer ma xam nga tey ñu ko yóbboon ci géej gi dañoo meroon bokkoon na ci li tax ñu yóbbu ko mooy dañoo meroon pour alal ko gis nga lakk leer mi ko doon jël si rek sëñ tubaay nee na bi ma dajeeg moom ci jéewal nee na dënd bi ngi riit ngir mu tàng ngir lan comme yàgg nañu wóolu sëñ bi te bi bi amagul diglu borom amagul diglu yonent bi dégg nga loolu nag moo taxoon nag ñi gën a mer sax nga xam ne liñ programme moom bi ñu jël ci sëñ bi dañ ne leen bu ngeen demee bu ngeen ko fekkee euh, yëpp na leen taal ray ray dongom ya ba noppi jàpp sëriñ bi indi si nga borom musal na ko ci lépp kon suñu borom mer mañ mer ñoom noonu yàlla da ko këpp seen kaw ndax nit léeg-léeg mu meer jëfandikoo meeram waaye nag am xaaju ju paju xam nga ko léeg-léeg nit di pexe fekk pexe mi mi ngi koy sukkandiku ci meram mer li ma misaale ko rek am na ñoo xamee ne fi xeexu ak yow seen xol du fiix masalan wala wala nga ñi xeex nga man ko fekk ñëwul xaañ la rek yaramam du sedd wala xolam du sedd fokk bala mooy gëm ne daal moo la man dalay xaañ wala mu bett la def la nanga wala ngeen xeexat noonu noonu la mel heure rek nu la jekko rek ba jàpp ne moo la rek man lu lay bàyyi xel moo tax ma rada delloo na xam ne yàlla bi xëy sum seen mer ma seen kaw rek la yem lam yajuroo amuñu xayran aw yiw mooy ndax buñ buñ buñ toroxaloon sëñ bi wala ñu alal ko rek dana am luñ bëgg muy yiw donte loolu ci waxin du yiw <laughs> du yiw waaye duñu am lañ bëgg kon nag na aw sëril na moom yàlla bi sulmum seen tooñaange ya ina kitaabatee naka sama mbind yi indal mus indal mus bi di yema taali fa géej gay aji fuur radat delloo na li xayri mu jëm ci kudul man kulla man lam yax budi képp koo xam ne nanguta jaamu yàlla nee na xaside yema taali ba ma nekkee ca géej gi nga xam ne day fuur géej gu fuur mooy géej gu bari ndox koo xam ne duus yi dañuy wàgg yi dañuy dóorante rek nee na xasida yi fa taalif nag képp ko nanguutoon a jaamu yàlla xasida yooyu ñoo la dàq nga jëm ci ku dul man aataani jox na ma mooy dikkee na ma al akram yàlla muy aje tedd ji inda xurbati ba ma nekkee fa tumarank ba ca géej ga afdala shikirin ngën ci ak tudd saana ni goo xamee ne moo aar fii turbati sama suuf see ma bàyyi gannaaw te muy tuuba nee yàlla mu di aji tedd ji ba ma nekkee ca tukki ba dafa ma bettee ngën ci ak tudd yàlla ci boppam moo ma defal moo ma def ngën ci ak tudd tudd goo xam ne tudd googu mu tudd ma suuf suuf see ma bàyyi ganaaw di senegal te mooy dëkk bee di Touba ci tudd googu yàlla tudd ma te muy tudd gi gën ci la ma protégé arma ndax yàlla nee na faskuruni askurkum waskuruni wala takfuruni dégg nga te yàlla bu lay tudd moom lay dajale bañ nekk say mu waxtaane ñàkk moromam kooku muy tudd loolu mooy faskuruni askurkum waskuruni wala takfuruni suñu borom ne bu ma tuddee ma tudd leen borom xam-xam firee ko ne boo tuddee yàlla ci biir mbooloo mu tudd la mbooloo mu gën mi ngi ko tuddee boo tuddee yàlla ci jàkk ci mbooloo yi nit di kese mu tuddee la moom ci bit malaaykaam ya loolu kon tiitar la kon aataan ya dikkee na ma alaakar yàlla muy aji tedd yi inda xurbati fa sama tumuranke ba afdala sikrin ngën ci ak tudd saana ni goo xam ne mooma ñogal fii turbati ci sama biir suuf lam yanhu nii dégg nga jubluwul ma mukk iblis iblis xattun mukk ilaa waddaahu lurut ba max na ko al muxsi ka nga xam ne aji gàccal la aji toroxal la aji toroxal la mooy aji gàccal la li man ñeel koo xamee ne asala da dama jéem a suufel nee ne iblis de saa boo xamee ne jublu na ma rek yàlla mi nga xam ne mooy ki koy toroxal moo koy bamax dégg nga yàlla mi nga xamee ne mooy ki nga xamee ne ku song ak waayam rek moo lay bamax moo lay toroxal nee ne iblis saa bu ma attaqué jublu ma rek yàlla bamax ko waaw yàlla mi nga xam ne képp ku ma bëgg suufee rek yàlla moo lay gàccal kon lam yan hu nii jubluun ma mukk iblis iblis xattun mukk ilaa wadaahu lu dul ba mu wax na ko moom iblis moomee al muxsi yàlla muy aji gàccal li man asala ñeel képp koo xam ne daf bëgg suufel man ku ma bëgg suufel rek yàlla ngay li watoog moo lay gàccal yan hoo dana jublu li xayri jëm ci ku doon man euh, maa kulla maa asur ànd koog lépp lu jafe wa yen hoo dana jublu li ci man lil jinaani bekk rek may tabi aljana maa lépp lu may nee na nag lépp loo xam ne lu jafele moom kooku moom lépp lépp lépp ci yem nag kooku day jublu jëm ci feneen fu bokk rek man waaye lépp lu may bégloo rek moo may jublu ba rek may tàbbi kon sëriñ bi loolu mooy suñu borom defal na ko loo xam ne defalul ko kenn léegi nag mu ne tarjumaan ji bu ji mu ne ka kulli da baxda saxrihi bila makrin wala qururin wala istidrajin wa jaala ma baynahu wa bayna yawmi arafata junnatan lii an makaarihi dunya wal aaxirati wa jannatan saafiyatan li ilal jannati allati wa'ida al muttaquun mu ne nag lii ma nettali ci xasida gi ne suñ borom musal na ma ci lépp lu jafe mu jëm ci furut man te ba rek may tàbbi aljana li may jublu moo di lu may bégloo nee na loolu nag du weer wi rek de te kulli sax ni bépp weer laa wax nag baax da sax yi gannaaw weer wi ma koy waxee sama weeru tamxarit ca bisu fukkeel ba te wax ji ko wax bila makarin amul ci pexe. wala xururin wala ak waru wala stijiraajin du caagin ak njeyal lu ñuy wax pexe yàlla euh, day pexal jàmm bi waxuma sax jàmm ñi di pexal nit ki waaye yàlla dafa am loo xam ne bu ko defalee jàmm rek da koy pexe da koy pexal sëñ bi nag saa bu nettali luko ko yàlla dafa danaan lii pexe nekkut ci moo tax ñaar ñi nga gis ñi am dara ab cër ci yàlla yépp yàqule pexem yàlla rek la waaw dañuy wax ne yàlla kum fiir jàpp la sëñ Tuubaa ngi lu ko yàlla defal nag moom danaan makrin amut ci muy defalul ma ko ngir di ma ci pexe ba xam dara ma jàpp waru nekkul ci ma defee ne mbir yëpp baax nañ léeg nga dégg ko wax sa waay lépp baax na waaw sëñ Tuubaa lañu àndal lépp baax na te nekkul ci la sëñ Tuubaa bëgg kooku mooy ak waru nag moom waaw yàlla na ci yàlla gu gën a bon mooy boobu moom lépp baax na te yow nekkoo ci luy baaxal mbir yi boo boo booy wax ne lépp baax na kay da ngay nekk ci luy baaxal mbir yi njëyal amu ci lu ñuy wax istidraaj suñu borom ne sa nastadrijuhum min haysu laa ya'lamuun danaa leen jëy ngeen dul xam kon njaayalug yàlla dafay bay ci yàlla jëm ci jàmm bi pexem yàlla day bay ci yàlla jëm ci jàmm bi lépp jàmm bi itam mu def ne lépp mbaax na te fekk dara baaxut fekk pexe rek moo ci nekk ak istidraaj ñoo ko wër. wa jaala moom yàlla def na maa baynoo la nekk digganteem wa bayna yawmi arafa ak diggante bisub arafa junnatan mu doon pakk lii ci man an makaarihi dunya walis lépp loo xam ne naqar naqaru ëdduna la wala ak alaxira waaye def na ko wa janata muy aljana saafiyatan gu sell lii ilal jannati ba keroog may tàbbi aljana ëllëti aljana ja nga xamee ne waida moom yàlla xadoos na ko almutaqoon way ragal ñu yàlla amin yàlla nga nangu ñaan yaa rabbal alamin yow yàlla muy borom bi def yi munu sun borom diggante bi suuf arafa arafa mooy weer wee ñu génn maanaam juróom-ñeenteel ci weer ci weeru tabaski sul hijja sul hijja weer yi moo ci tegu muy weeru tam xarit nee na diggante bi suuf arafa nag dégg nga sun borom def na digganteem ak diggante bi suuf arafa mu doon pakk ci man maanaam xasida gi bis bi mu ko taalif di fukki fan ci weeru tamxarit ak bisub xarafa ba nekk ci weeru sulhijja diggante boobu dégg nga nee na suñu borom defal na ma ko muy doon pakk pak mooy loo xam ne da lay difandaral da lay falangal yu bari mooy doon na pakk ci man ci lépp loo xam ne naqar naqaru ëdduna la alaxira waaye doon na aljana ju sell goo xam ne dootu nëxati ba keroog may tàbbi aljana aljana yi nga xam ne yàlla du ko dig way ragal ñi yàlla amin yaa rabbal alamin loolu moom daane daane xasidal rek Euh, luñ ko defal la ba noppi waaye mu wax ko ci anamu amin yaa rabbal alamin anamu ñaan kon yàlla daal def na digganteem ak diggante bisub arafa mu doon pakk ci man ci naqar naqaru yi ak alaxira waaye def na ko ba tey mu doon aljana ju sell ci man ba keroog may tabe aljana aljana ji nga xam ne yàlla da koo dik way ragal yàlla tàmbaliwaat beneen xasida mu ne bismillahi sos na ma sama wax ci tuddu turu buur bi arrahmaani buur bay xéwalaa kon ñëpp ci na arahimi buur bay ajiram ku ci alaxira nee ne maa ngi tàmbalee ci tudd tudd tudd suñu borom subhaanahu wa taala moom yàlla mi nga xam ne mooy ki xéewalaa kon ñëpp ci àddina tey aji yërëm ku ko soob ci alaxira wasala yàlla na julli alaaw yàlla ala sayidina ci kaw sunu sang bi muhammadin turam mooy muhammad wa ala ali ak ñoña wasama bi ak saxaabaam bi wasalama tam dolli ko wóolu tasliman ak dolli wóolu nee ne maa ngi dagaan ci yàlla yàlla julli ci yonent bi nga xam ne mooy sunu sang bi turam mooy muhammad yàlla yàlla julli ci waa këram ak saxaabaam yëpp te dolli ko ak fu mën a nekk kataba bind na allahu yàlla tabaaraka moom mi nga xam ne barkeel na wa taala tey aji kawe ana naasima naka aji way haataynil xasidatayni ñaari xasida yi nga xam ne almanqoosatayni ñaar yu ñu jëlee lañ ñaari xasida yi mooy ñaar yu ñu jëlee lañ min yow mi xaasura ñi bàyyi ko ci baatab xaasura wa yow ma xarafata ak bisub xarafa dégg nga asamaho màggal na ko allahu yàlla tabaaraka yàlla mi nga xam barkeel na wa taala tey aji kawe wa neex ma amul morom alqaa'ilu aji wax ci alqur'aan wa man yuasim koo xamee ne dana màggal xurumaati laay xorma yàlla yi foofu moom xayrun moo gën mukk moo gën fuuf la xoo ñeel ko wa asamahu te musal na ko bi xadri asamati saate ci katnuk jëmam ji minal makaar yi ci lépp loo xam ne xeeti pexe la wal mafasid wala luy yàq fil xaali moo xam fii cëru na la wal maali ak delluwaay bi dellu jëmal am mu ne yàlla sunu borom subhaanahu wa moo bind ne man mi taalif ñaari xasida yi jëlee ko ci yow ma asooraa bisu xarafa bi nga xam ne sunu borom subhaanahu wa taala da koo màggal yàlla mi nga xam ne ku barke la tey aji kawe moo tax mu tagg yàlla ne est moom mi wax ci alquran ayib alquran la ne ku màggal xorma yàlla yi de moo gën ci moom fuuf nee na man nag man mi taalif xasida gi yàlla bind na ne musal na ma ci kàttanu jëmam ji ci lépp luy xeeti pexe ak yàq. cërnu ka laaxira lu yàq cërnu ko laaxira wala pexe rek suñu borom musal na ma ci lépp suñu borom subhanahu wa taala na ma ci ba mu set wicc